sama projet ci yoonu Mouride. Mhm. Euh, c'est de montrer. Mhm. un Baye Fall modèle. un sama sëriñ ba mu gërëm ma yëkkati teg ci sama los ni ma bis ni tey yàlla gërëm na la. est-ce que. bi gërëm na la. rangooñam dal ci dënnam daal ni lii ma def yàllaa ba ko digal ma def ko. mbooloo mu daal ni yóbbu leen ko mu dem këram am ñum ma bolé ni na dem bu ñu demee na ngeen ko tégal 16 fallu moo won ak nii ngeen di gis du bok moo ni ma dama laa préparer pour nga don modèle mo tax sama mission c'est un modèle bayfal c'est de montrer un bayfal modèle boo dee dégg Baye Fall modèle nag mm-hmm. mooy caricature gi ñu jox bayfal moy ñakum jang jàng mm-hmm. ñàkkum xam mm-hmm. sol sa lu la neex wax sa lu la neex. Hmm. dem fu la neex. Hmm. nekk ca la la neex. yooyu la ñu jox Baye Fall. waaw je suis venu nag man pour montrer que ni maanaam on est diamétralement opposé à cela. ni Baye Fall ak li ñu jàpp wuute hmm, sëriñ bi moo ne ma ñett ku génne ci yoon bi sa bopp nga nekk. ñett. muy yéen. munoo bi ci jiitu mooy yilif sa bopp. te nit bu yilifé bopam ci lu ko neex rek lay nek nafsam lay top deug la mom la alquran di wax ni inna nafsala amartum bisu bam yag mo nan nafsun mutma inna ak nafsun dawama neena bo xasse ba yilif sa bop aduna lay gën ci si banex seigne touba teunkel la loolu yep ni la tashtari dunya bi ukhra ya fata man baa nuran bid bi duja fa munuma ñaareel bi nit bu fonkulee boppam ku mu ni fonk na ko wax ko dëgg. da koy def waaw. gis ku dox ci mbedd mi. Hmm. jàppe boppam aw Baay Faal bu bokk ci yoon wi. Hmm. jàppe boppam koo xam te ne alalu Cheikh Ibrahima Fall la. Hmm. nit ñi nangul ko ko ndax gànjar yeeg kajab kajab yeeg yooyu. mas nga gis nataalu Cheikh Ibrahima Fall ba mu takkee ay kajab kajab ak ay gànjar mas nga koo gis. déedéet mas ngaa romb benn sëtu Cheikh Ibrahima Fall ci incorrect. civisme lañu nu donn hmm. ci deret ngor lañu nu donn ci deret hmm. njambar lañu nu donn ci senu mam Cheikh ibrahim était trop civilisé waxna ko ci ay waxtan yu bari baxa la dan sol jël palman tek ci kawam sol ay tambe sembe ndol ta kaw di mesure 2 mètres 4 ñul bay briller fess del ak yalla tay nel dama top tanku yalla mu duggal kër touba Tuubaa hmm. kon bi mi ñew amna yalla ndax kuy topp tànkub yalla xam nga yàlla macha allah léegi sëñ Fallou. waaw dama lay jox ñetteel bi. ay ca ñett ñetteel bi. mu ne ñetteel bi. ku yeewul day neex a nax. kuy nelaw. mu ne yoon wii ñu nekk. yoonu xëlu ñëw la waaye xeloo la ciy tax a jëriñu. alxuraan sax dafa ne saari'u ilaa magfiratin min rabbikum njëkkante leen. ci yiw yi. fa saabiquuna siraatan fan yubsiruun بودا ميسك تقصد آخر الزمان سنجاد يخني سارعوا إلى الخيرات داو لين دمتي يوجي مولي دانا يندكن تداو هاي دانا يخيلون جل مولا جرمي دقل دو لم ستانك لم سلوس لو سن بيخ نلك واو فال داني لم تانكي لم لوس يواي دانين تالو خيلمي شو خيلمي داني شو نيون داني دون اي نيون اي نيت دون اي مالا سو مالا دادنا أسفل السافلين دارني ديكال ñett yi mooy critère doomi aadama bu dañee ci yow doonu tool li nga mën doon mm. te pour nga doon Baay Faal faw nga am contraire bu ñett yi